Ahmed mbay membre du parti démocratique sénégalais au niveau de de Thiès ñu bëggoon rek euh, indi ay leeral wax ci actualité politique bi li ci mujj nag mooy li ñuy dégg ci rajo yi démb ak tey ci revue de presse bi Idriss Seck wax ko jëmale ko ci président Abdoulaye Wade ndax dafa wax ne président Macky Sall dafa wër àddina bi yëpp vilipendé euh, président deru yàq deru président Wade ba communauté internationale bi. Euh, booleetuñ ko ci li nga xamante ne moom ay médiation te Ablaye Wade ko xam-xam ne am na ay talent ci médiation euh, ñu bëggoon ci leeral ndax defe naa talent Ablaye Wade moom romb na romb na foofu yépp xëy na moom moom moo ko yéex a xam ñu bëgg rek euh, fàttali tuuti rek ndaxte dañoo jaaxle ci waxu Idriss Seck boobu ndax ki koy wax est-ce que Idriss Seck la loolu jara laaj ba pare ndax Sénégal su fekkente ne y a quelqu'un qui a mal à, Abdoulaye Wade et à sa famille, c'est bien Idrissa Seck. te défends naa Sénégalais yi les Sénégalais ne sont pas amnésiques parce que Idriss Seck dafay insulter l'intelligence même des Sénégalais jàpp les Sénégalais sont amnésiques wala dañuy faté, wala xamuñu li xewoon démb ak bërki démb ndaxte yaakaar naa ne moom euh, li Abdoulaye Wade def ci moom ñëpp xam nañ ko moo ko jàppale encadré ko ci njàngam je suis directeur de campagne le plus jeune directeur de campagne de l'histoire politique du Sénégal en 88 encadré ko en 2000 je def ko directeur de cabinet du président Denko ay politique am Idriss Seck nek di def complot contre Wad et sa famille ndax buñuy wax euh dévolution monarchique kan moko don théoriser c'est Idriss Seck Bon, xamone na détecter les talents de Karim Wad. Je sais Karim Wad il est brillant c'est un garçon brillant mu xam ne su fëlee dina ko yàqal mu daal di génn yàq daram wër àddina bi wax sénégalais yi ak étrangers yi ne leen président Abdoulaye Wade day préparer doomam pour def une dévolution monarchique du pouvoir te ko xam Sénégal xam ne dévolution monarchique mënu fi am ndax euh, les lois et règlements permettre ko code électoral bi permettre ko bu bëggee nekk président da ngay jaar ci élection falu Idriss Seck moo doon théoriser loolu pour yàq deru euh, président Abdoulaye Wade ak deru Karim Idriss Seck aussi ñëpp xam nañ ne moom la Abdoulaye Wade wóolu woon mu génne ay CD contre le président Abdoulaye tuddee ko lui et moi kilifa bu la wóoloo nga enregistré ko ñëpp ci Idriss Seck lañ jàngee enregistrement Sénégal léegi kilifa koy waxal sax boo yoree sa portable danaan la fay ko parce que Idriss Seck dafa enregistré woon président Abdoulaye waat ñoom aussi ñu yaakaar ne euh, war nañ leen mën a enregistré ci ci ci ci ci beneen euh, euh, jotaay bu demee noonu. L'autre, ci Idriss Seck le mom aussi fi président Abdoulaye Wade ancien spermatozoïde ci ku yar defal la wax bu ñaawé non nga wax insulté euh, ni doomu nga ñaawlu ko te japp naané dem élection 2012 le mu waxul ci président Abdoulaye Wade euh, daf ko faté ndax mom nak ay di wax

pour ñu jàpp doomu Abdoulaye Wade parce que bëggoon nañoo toroxal président Abdoulaye Wade bëggoon nañoo toroxal doomam ñu dem créer créer jàpp Karim Wade de façon injuste tëj ko ci kaso bi. pendant trois ans bi président Macky Sall décidé libérer Karim Wade parce que dossier bi sonaloon na ko def koy gracier ko Idriss Seck moo taxaw fii daal di wax ne c'est un deal international orchestré par Wade et sa famille donc loolu insulte mënu ko raw te mom mo moo fi wax ne je n'ai aucun doute par rapport à la culpabilité de de de, de Karim Wade Lolu barki démb gi lako Idriss Seck wax moom nag dafay jaaxaar ne mo upp xel ñep wala mo gëna yewu ñep. ñëpp ki yaakar ya gëna gën yo ya gëna ya gëna dof. Ndax gën tay mom palu président jaral nako lu ne lu mu xalaat ne bu ko defee lu mu xalaat ne bu ko waxee dina nekk président da koy def wala mu wax ko parce que yaakaar na ne Karim Wade écarté nañ ko parce que moom dafa contribuer ci ñu ko écarté te waa PDS ñoom lu ñu wax lu leer la Karim Wade mooy seen euh, candidat mu dem fexe ba coalition opposition bi ci élection législative yi jàllul loolu c'est grace à Idriss Seck boo gisee ñoom xalifa sàll ak ñëpp ànduñu ak président Abdoulaye waat Idriss Seck moo fa jaar yàq seen xel ne bu ngeen nangoo coalition bi PDS jiite ko ñun ñëpp ñu ànd xëy na sax dinañu gañe waaye bu ñu gañee président Abdoulaye doom lay fal coalition bi daal di mu ne Khalifa Sall mi ngi ci bi pour mën ko enfoncé Macky Sall gën euh, état bi gën ko téye mu euh, euh, tête de liste au niveau national bu ko defee bu ñu Khalifa Sall mu Karim mu comme pour dafa dénoncer Sénégalais dañ ko war a xam Idriss Sénégalais mu président déjà c'est un homme suffisant mu yaakaar ne xam na lépp c'est un homme boo xam ne amul respect ci doomu aadama ndax moom bëggul contradiction képp kuy wax déet doo mën a ànd ak Idriss sec képp ko am fulla am fayda gëm sa bopp doo mën a ànd ak Idriss Seck ñun ñii dañ ko pratiquer xam ko 2014 bi nga xamante ne mooy élection locale yi mujjee nga xam ne ñun ñoo demoon à au niveau de Thiès ci président Abdoulaye Wade pour demande ko permission jéem ko convaincre ñaan ko pour mu may ñu ànd ak Idriss Seck ci élection locale yi ndax boobu bugguñu APR gagné ville de Thiès bugguñu APR gagné département de Thiès président Abdoulaye lu mu ñu njëkk a wax est-ce que wóolu ngeen ko ñun ko du question wóolu question de réel politique la suñu àndul ak moom boole doole yi APR dafay gagné département de Thiès te loolu kenn bëgg ko ñu daal di def coalition bi ñu defee coalition au niveau de Thiès ville ñaari communes yi PDS ak ànd defar Thiès ñoo ànd ci ñaari communes yi commune ouest PDS dafa ber listam département bi am na liste yoo xam PDS dañ ko ber boo demee njëyeen sirax ci commune bi PDS dafa ber listam Serigne Fall Fall nekk te de liste PDS ko nga dem euh, Kayar frère de liste bi PDS ber listam gañu ko nga dem euh, Kër Mousso sunu frère Momar Sis liste PDS bi te ànduñoo kenn ñu gañe ko ñu dem aussi Euh, euh, euh, le le frère nu mu tudd honorable député gañe ko moom it PDS gañe fof. tey bi ñu ci liste yi ñu dem dindi liste nous trouvons PDS yi ba ñëpp découragé ne du voter liste départementale bi ndax liste départementale bu ko PDS voté wul woon APR moi, nekk président conseil départemental bi nga xam Idriss Seck moo fi donc il a fallu que nous convaincre waa PDS yi te tey boo xoolee résultat yi nga génne les voix du PDS ñent commune ni mala wax génne ko Jandeer génne ko Njëyeen Sirax génne ko keur Moussa génne ko Kayar APR moy nek majoritaire donc Idriss Seck postam bi mu tok ci conseil départemental il le doit au PDS il n'a pas été reconnaissant au PDS parce que dafa waxoon daf ñuy jox poste vice-président au niveau du conseil départemental il l'a il l'a pas fait te buñu ñu sacrifier suñu nit ñi ñom ñoo fait sen complot dindi len te ci élection locale yooyu bi président Abdoulaye Wade nangu décidé ñëw Thiès pour jàppale suñu ci campagne bi Idriss sek lui-même dafa wax ne il faut pas rencontrer le président Abdoulaye mu ne bu ko niwoo sax du ko fay bëggu ko gisati sax ci photo donc kooku nag du wëlbatiku tey parce que yaakaar na ne euh, candidat PDS dañ koy gàllankoor yaakaar na ne Khalifa Sall du nekk candidat mu bëgg wëlbatiku taxaw ne day érigé wu comme défenseur du président Abdoulaye Wade dama ne loolu ça ne passe pas il ne trompe personne donc loolu mënul jàll lii dëgg mooy Idriss Seck moom bëggul a gis képp kuy euh, wuyoo ci turu président Abdoulaye wala ku bokk ci famem ndax tey li dal président Abdoulaye Wade yépp Idriss Seck ma ko teg te ñu toog nañu ci rencontre ba tey président Abdoulaye wax ne lu ma dal Idriss Seck ma ko teg parce que li mu doon rencontre wax Sénégalais yi dara du ci dëgg ndax tey histoire dafa wane ne président Abdoulaye Wade moo am dëgg ci Idriss Seck moo tax Macky Sall falu nekk place am te moom mënul nangu ne Macky Sall mooy président parce que yàlla mooy fal yàlla mooy fal président dépendre ci ñun waaye ñun li dépendre ci ñun danañu def lu ñu mën wax ko expliquer sénégalais yi waxtaan ak ñoom ba ñu xam ne bu ñuy tànn nañu fi bàyyi Idriss Seck ndax bis bu ñu ko defee président dinañ ko rëccu ba ilaa yow mi di ndax li xew États-Unis ba Trump falu fa ba 2 millions de personnes di manifester. ñooñu bu ñu defoon dugaloon seen loxo ci élection yi Trump du fa falu tey gis nga dégâts yi muy def ak musiba yi muy def ci àddina bi ñu nag Sénégal bu ñu seetaanee ba Idriss Seck falu fi lu ñu dal ñoo ko teg suñu bopp ndax koo xam ne kii yow sa vision sorewul bi président Abdoulaye waxe Wade waxee dañuy defar aéroport international Idriss Seck dafa waxoon loolu mënul nekk Sénégal aéroport international teel na fi mënu fee am président Abdoulaye Wade wax autoroute à mu ne mënul nekk te yëpp kon Idriss Seck vision soriwul gis-gisam soriwul Thiès gi ñuko denkon il a toujours été un maire fantôme musul liggéey li fi amakas ñew ci biir Thiès ñu koy on le doit au président Abdoulaye Wade on le doit à l'État du Sénégal mais Idriss Seck en tant que lui en tant que maire de Thiès il n'a aucune réalisation sur fond propre. li fi nek Thiès yeb président Abdoulaye Wade Moko fi def mu daal koy mbubboo jaxase ko ak Thiès way nax nit ñi ndax ñun dañoo bokkon ci ñi mu naxoon waye yalla may nañu ñu gindiku donc moom gis-gisam soriwul du liggéeykat c'est un pouvoiriste li ko intéressé mooy nguur te bu faloo boppam lay fal fal ay famem ndax lii Karim Wade daj ba yàlla génne ko ci coono yi bu fekkoon Idriss Seck moo nekk président dina daj lu ko pire ndax il a une haine viscérale contre le président Abdoulaye Wade et sa famille notamment son fils Karim Wade ñooñu lay bañ a gis ñooñu lay bañ a dégg kon Idriss Seck su fekkee am na ko def lu bon Abdoulaye Wade am na ko ko tooñ am na ko ko ameel àq am na ko yàq daram moom Idriss Seck moo ci jiitu ku ci nekk rek moo la teg ci yoon bi moo la wan yoon bi ndax moo ko commencé woon tuddee fi Karim Wade mu c'est 15 pour cent te bu ñu audité Karim Wade on a rien moo tax ñu dem indi CREI te ñoom ñoo ko xelaloon président Abdoulaye Wade ñoom ñoo complé woon doomu Abdoulaye Wade ànd ak la communauté internationale bi muy wax naan dootuñ du ñu woo président Abdoulaye du ñu ko woo évidemment ndax Wade il a été par la communauté internationale loolu ñëpp xam nañ ko complot international la ñu def ñoom Idriss Seck orchestré ko. ñoom ñu ñëw fexe ba délogé président Abdoulaye Wade te moom mi ko doon délogé nekkul président loolu moo ko metti dafa jàppoon ne bu ñu xeexee président Abdoulaye Wade complot ko au niveau international moom Idriss Seck dina nekk président et Macky moo nekk président loolu yàlla dogal te moom defe naa ne Thiès gi sax mënatu koo gañee bay nekk président su fekkee cinq département moo fi am yow nga nekk élect euh, candidat élection présidentielle dëkk départemental département de Thiès te mënatoo koo gañe tu peux pas aspirer à grand donc il n'est pas question pour nous nous, Khalat, nous Idriss Seck Warna naa un quelconque soutien venant de la famille du président Abdoulaye sa famille biologique comme sa famille politique il n'en est pas question nous allons nous ériger, en, euh, sentinelle pour lui barrer la route pour rappeler euh, aux Sénégalais l'histoire euh, du politique du Sénégal bi nga maintenant Idriss Seck lu ñaaw Abdoulaye Wade moi c'est dégg l'unique ñu ko mës a ci bon moi, moo ko orchestré moom moo ko def contre doomam moo fexe ñu tëj ko te loolu mënul jàll kon tey bu taxawee di wax naan président Macky Sall moo vilipendé président euh, euh, euh, Abdoulaye Wade yàq deram moom Idriss Seck moo wane yoon bi moo ko jiite woon moom mooy completeur bu mag bi moom mooy président Abdoulaye Wade defal teraanga jox ko xaalisam mu sàkkal ko pexe def lu ko neex yàq deram fexe ba jaxase kook Sénégal yépp fexe ba loo nit ñi ne dévolution monarchique moo fi am parce que ragaloon na ne Karim Wade su bokkee du bokk ndax Idriss Seck moo taxaw fii doute sur la culpabilité de Karim Wade parce que xalaat na ne bu Karim euh, candidat moom du bokk te même su Karim nekkul président incha allah du fi duñ ko seetaan fi nekk président en tout cas du jaare ci ñun dogal ñun dañ ci bay sunu Sénégal am bu toll ne Idriss Seck nekk président ci Sénégal gi ndax Sénégal li soxla mooy jàmm te moom day fayantoo day rancunier la intéressé pouvoiriste la du donc yi wah wax wax yi caaxaan la yi muy wax wax yi yépp sénégalais yi la lii muy wax wax yi wax yi la yoo xam ne wax yu yu tegwul fenn la donc idris sek na xam ne moom kenn du ko bàyyi muy naxate sénégalais yi ndax ñun dañoo bokkoon ci ni mu naxoon waaye nit ñi yàlla gindi na leen ba ñu yeewu incha def tout pour mu président ci sénégal gi loolu lu ñuy wax euh, di euh, jéggulu ci yi di niwu sénégalais yépp di euh, ñaanal sénégal jàmm rek sax fi asalaamaaleykum wa rahmatullah